mooy Boy Jobaas ak ki nga xam ne mooy Yoro Baax Yoro Baax Boy Jobaas ñu ngi léewtoo léewtoo bu déeg ñoom ñaar ñu ngi dina ñu ñëw Yoro Baax a ngi ñëw mu ngi ñëw par ndànk-ndànk waaye Boy Jobaas a koy xool ci bët est-ce que Yoro Baax waaye baaraamu déy bi suuloogul kon demagul fu mu nekk ñoom ñaar ku nekk ma ngay jàpp. mu mel ni Boy Jobaas baa Baba lambam yëpp xeex la koy def waaye bëriwu ci. waa xeex la koy def mooy bëriwu ji moo tax tey ki nga xam ne mooy Yoro Baax li mu war a def mooy fir calculer fan lay dem est-ce que tànku dëy bi dëy bu ko suulee day ñëw de am déet waaye comme que nit ki nag la ngay def daal ah ba ma ne gis nga waaw waaw waaw déclenché na kiw waaw déclenché na benn kiw waaye ba léegi booy jobaas booy jobaas a koy xool parce que mayu ko Yoro Baax nan la ñuy def dina baax tey am du baax li ci kanam rawuti bët su ci kanamee tuut la ñuy xam ndegam Yoro Baax ma ngay pousse par ndànk-ndànk du suul tànk bi di ñëw sëgg na dagg na léewtoo bi waaye ki nga xam ne mooy booy pamba booy ma naan booy pamba rek booy jabaas fu mu nekk jobaas la jóge fu mu nekk xale bi waaw yoro baax lan lay def miime na waaye demul yoro baax sànni na benn coup mais dugul fu mu nekk ñoom ñaar ña ngay léewtoo waaye jàppanteeguñu yoro baax lan la bëgg day bëgg daje nañ ñoom ñaar takk nañ booy jabaas jël na booy jabaas jël na yoro baax takk booy jabaas wàcc fu mu nekk rasu na Boy Jabaas dafa rasu pour bañ mu te indi ko est-ce que dina ko indi am déet yoroo baax Boy jobaas fu mu nekk kurpeñ jógagul fu mu nekk ku nekk ngi lijjanti sa diggante ñoom ñaar yoroo baax yoroo baax Boy jobaas yoroo baax Boy Jabaas fu mu nekk yoroo baax ma ngay liggéey waaye Boy Jabaas a koy déglu fu mu nekk daf ko bëgg a bëtt mu bañ yoroo baax daf koo bëgg a bëtt mu bañ Boy Jabaas daal di fermer fermer angle bi nga xam fa lay jaar jàpp li nga xam ne mooy diggante keru nopp bi waaw fi mu nekk dindi na loxo bi loxo bi nga dindi baaxul. mu mel ni père Baba mu génn. mu mel ni père Baba kii la mu bëggoon loolu la. waaw waaw fi mu nekk waaye damaa gis ni. jëm nañ sa saako ya jëm nañ sa saako ya man su ah booy ah booy jobaas booy jobaas saako ya booy jobaas saako ya booy jobaas saako ya si leen dellu si leen wax nga dëgg comme que jekku nañ la demal kaay jël avertissement kaay jël avertissement waaw kaay jël avertissement waaw ah, waay Ngom yaa baax waay ndeysaan sifle na ci ñoom ñaar yoroo baax booy jobaas yoroo baax booy jobaas est-ce que day delloowaat buum ca booy booy ba am yor yoroo baax sëgg booy jobaas di ko xool booy jobaas a ngi ñëw yoroo baax yoroo baax dawaat na ko yoroo baax ah booy jobaas yoroo baaxee eh! dem na ko caari ah yoroo baax booy jobaas tey ah booy jobaas booy jaraas waayi waaw waaw baax daf ko daf ko guy nag. daf koo guy. ba pare ba rek moom daf koo guy ba pare mayu ko fu mu ko dóoree. kon fu mu nekk nii ah ñuy wax daal la fu mu nekk gis nga commentaire testu combat bi. waaw mu mel ni tey jii euh, Père Baba mu ngi doon rapporté combat bi waaye mu mel ni tey jii waroo baax dafa ñëw liir booy jobaas xam ne xeex la bëgg mu njëkk ko ci xeex bi ànd ak moom ñu jàppoo ndenge ñante ba jëm ci saako yi mu bëgg koo fiile booy jobaas génn ñu dugaat booy. yàlla baax tëru ko dóor ko laaw ci kaw boo joxaa boo joxaa sigi mu sàcc ko takk ko ba mu wóor bu di ko ba ci kaw jëmbat ko ci suuf kon mu mel ne da koo sàcc doole mu mel ne da koo sàcc doole boo jabaat jugal demérité woo lamb nii la kala da nga fay door sa mu daanu kon tey buñ la daanee da ngay muñ ba ñu tëdd ci biir géew bi mbër du tëdd ci géew mbër du tëdd ci géew rafetlu ma ko rafetlu ma mbër muy tëdd ci biir géew ana far ndey ne ko ñëw jël mu mel ni ñu ngi jàkkaarloog soxor kële noonu mu dugg ci biir géew bi war a laaleeg Modou Anta Gueye numéro 2 ah turandoo de Thiès kon Modou Anta ak soxor kële loolu rek grand combat la woon Sidi Diakhaté bu boole ñaari grand combat teg ko ci benn bés mu nekk diggante laay góor laay Pythagore diggante Modou Anta Gueye ak soxor kële daf sal ci benn combat xale boo xamante ni combat l'espoir la combat neex la mu nekk ci wës jàmbaar naa la Baye